nee na kàddu yi nag du gudd. ndax démb. ndax démb. ci àllarba ji. ci àllarba ji. bi sëriñ bi ubbee rek. bi sëriñ bi ubbee rek. daa wax li yitteem jëpp. daa wax li yitteem jëpp. li ci jiitu. li ci jiitu. balaa tàmbalee daje ak nit ñi. ba balaa tàmbalee daje ak nit ñi. ndax moom du noppalu. ndax moom kat du noppalu. bu nit ñi bëggee mu noppalu sax. su nit ñi bëggee sax mu noppalu. day wax ne sëñu ma ko. day wax ne sëñu ma ko. ndax liggéey bi. ndax liggéey bi. sëriñ Cheikh mi xam na ci dara. sëriñ Cheikh Abdou Latif mi xam na ci dara. ñun ñii topp ci ginnaawam. ñun ñii topp ci ginnaawam. dañuy dem ba duñ mën a seqeeti jéego. dañuy dem ba ñun duutuñu mën a seqi ab jéego. waaye foo ko fekk ci biir néegam. waaye foo ko fekk ci biir néegam. mu yendu ci daayira yi. mu yendu ci daayira yi. ba nga jàpp ne boo ko fekkee da nga koy fekk mu tëdd. ba nga jàpp ne bu ma demee dama koy fekk mu tëdd. da nga koy fekk mu yor jukkib xasida bi. da nga koy fekk mu yor jukkib xasidam. boo ko soxlaa. boo ko soxlaa. day teg téere bi. day teg téere bi. wax ak yow wax ak yow. ñaanal la ñaanal la. àggale waat jukki bi yoraat jukkeem àggale ko. boo ko fekkoon guddi noonu lay def. boo ko fekkoon guddi tuuti noon lay def. kon kooku bëgg na nit ñi am jàmm. kon kooku day bëgg na nit ñi am jàmm. ndax bu doon jëmmam rek. ndax bu doon jëmmam rek. lu bare teggiku na ko. lu baree bari teggiku na ko. bëgg xet li bindee fi rek. waaye bëgg xet li bindee fi rek. kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi. kon ñoo ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool tànd ak wér. démb nag bi mu agsee. démb nag bi mu agsee. fa saasa. koo daal di woo fa saasa. wax ne na wax ak am di wax ko ne ko na nga dem wax ak am di mu moom Serigne Modou Mbenda. moom Serigne Modou Mbenda. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. mi fi jëmmi Cheikh Ibra tey ci kaw suuf. noo ngi koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. noo koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. na ko na yabal njabootam gi. na ko na yabal gi. mu wax ak ñoom. mu wax ak ñoom. waxtaan wi waxtaan wi la ci jiitu. la ca jiitu. mooy cant. mooy cant. ak gërëm leen ak gërëm leen ak ñaax leen ak ñaax leen ak ak ñoom liggéey bi ak ànd ak ñoom nag liggéey bi ndax liggéey bi da ko itteel ndax liggéey bii moom da ko itteel bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo waxtaan yu mu jëpp waxtaanam yu mujj yëpp. daaw ba daaw ba ren. saa su waxee rek war dëkk saa yu waxee rek ci lu sàmm war may dëkk bi lay wax. kon itteel na ko. kon itteel na ko. te bëgg a dimbale nit ñi rek te bëgg a nit ñi képp a tax. mu wax leen nam ko bëggee. sëriñ bi nag wax leen nam ko bëggee. ndax lam ci jublu it. ndax lam ci jublu mooy bañ kenn juum. mooy bañ kenn juum. ndax ñi dëkk bi ñi dëkk dëkk bi ñëpp. ndax ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp. njabootam lañ njabootu sëñ Muntaxa lañ ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñëpp taalibe sëñ Tuubaa lañ. ñenn ñi fi koomam àdduna andi itam. ñenn ñi fi koomam àdduna andi itam. yaakaar yërmande sëñ bi tax. yaakaar yërmande sëñ bi rek a tax. kon yër kon dëkkub yërmande la. kon dëkk bi dëkkub yërmande la. kon bëggut kenn loru. kon bëggut kenn loru. te am na ñaari baat yu mu jëfandikoo démb. te am na ñaari baat kat yoo xam ne jëfandikoo na ko démb. te waxoon na ko démb waxoon na ko ci kor gi. te waxoon na ko ci kor gi. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. na sëñ Tuubaa ba mu jógee. la ko tax a jóg moo ko tax a jóg. la ko tax a jóg rek moo ko tax a jóg. dem na ba am ca ndam. dem na nag ba am ca ndam. te wenn toq toq deret tuuru te genn toq deret tuuruwut. xaddamut xaddamut. démb fa fàttali na ko. baat boobu démb fàttaliwaat na ko. kon lam ci jublu woon. kon lam ci jublu woon. mooy kayit wa nga xam ne. mooy kayit wa nga xam ne. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. bindoon na ko. bindoon na ko. àndoon ko njabootu Serigne Touba gim fi fekkandoo. àndoon ko ak njabootu Serigne Touba gim fi fekkandoo. yaakaar ko. bi. Cheikh Abdoul Ahad leeral li mu bëgg ci dëkk bi. ak lim fi tere ak fi tere. te na sax du waxi rajo. xam na xëy ba mu koy def. waaye Cheikh Abdoul Ahad ba mu ko wax directement. nee na ko ko wax directement. te boobu ma nga Touba te boobu ma nga Touba Belel. ba ba àgg ci misaal ñam ko doon wax. ba àgg ci misaalal ñam ko doon wax. te ñam ko doon ñam ko waxoon. te ñam ko waxoon. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund. am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund. sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir mi nettali na ko. sëriñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir mii sëñ na ko. xam ngeen ne sëñ Moustapha lu mu wax. te sëñ Moustapha de moom xam ngeen ne lu mu wax. lu wér la lu wér la. sëñ nee na ko. sëñ Abdou Lahat nee na ko. sëñ Touba yónnee ci man ndaw. sëñ Touba moo yónnee ci man ndaw ab leetar ab leetar mbind mu tooy xëpp mbind tooy xëpp te leetar ba it ña doon andi te leetar ba it ña doon andi sëñ Masamba ca la bokk sëñ Masamba ca la bokk sëñ Moodu Maamun Ñang ñoom moog sëñ Ñang ak sëñ Moustapha am sëñ Abdou Khadir la ko nettali loo ak ñeneen ak ñeneen te nettali na ko ñeneen te nettali na ko ñeneen kon loolu xam ngeen bu ngeen gisee sëñ Muntaxa dogoo dogoo ci nii rek ndigalul sëñ Tuubaa ndigalul sëñ Tuubaa man awma andil leen ndigal li andil leen ndigal li bind ko ciw kayit bind ko ciw kayit ne leen fii la tàmbalee ne leen fii la tàmbalee fii la yem fii la yem loola itam lam ci jublu loola itam lam ci jublu xam na ne Baye Fall moom xam na ne Baye Fall moom ñoom seen seen seen seen dund gépp ñoom seen dund gépp mooy ndigal mooy ndigal te bëggul dara bar dara ëpp te bëggul nag dara ëpp bëggul dara yées bëggul it dara yées ndax inna diinana mabniyun ala ala naqli ndax ala ala munasabati naqli diine ji nee na diine ji Seydina Aboubacar dafa wax ne Seydina Aboubacar dafa wax ne niñ ko toxalee rek niñ toxalee diine ji rek noonu lay wéree noonu lay wéree waaye kenn du jëfandikoo sam waaye kenn du jëfandikoo nag sam xel si diine fii la tàmbalee moo tax sëriñ bi ne fii la tàmbalee fii la yem mbégteem àgg na ci mbégteem àgg na ci ba mu waxtaanee ak ñoom ba noppi. ba mu seen pëstéef. yéem seen pëstéef. yéem seen seenu dëggu. yéem seenu dëggu. sant leen ci li weesu lépp. sant leen ci li weesu lépp. dafay yëkkati ñaari gëléem. dafay yëkkati ñaari gëléem. ne leen damaa bëgg ngeen barkeeloo ko def ko añ. ne leen damaa bëgg ngeen ko nag def ko añ. kon loolu ak yëkkatiku la. kon loolu ak yëkkatiku la. kon loolu rek mooy li ci ëpp solo. kon loolu mooy li ci ëpp solo. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na li ci matoon wax. kon daanaka kaddu yi sëriñ Cheikh wax na ci li ci matoon wax. ndax xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi ci xam ngeen ne mooy ndawul sëñ bi fii moom. muy jàmbaar lool itam. muy jàmbaar lool itam. di borom pasteef di borom pasteef. jaay njuréel gépp. jaay gépp. ak bokk gépp ak bokk gépp. jënd koog taalibe jënd koog taalibe. kon ñu ngi kon ñu ngi lay sant yow bu baax. sëñ daam mi itam. sëñ daam mi itam. moo fi teewal sëñ am di. moo fi teewal sëñ am di. ak bokkam yëpp. ak bokkam yëpp. teewal bi. teewal fi sëñ bi. waaye moom itam muy jàmbaar. waaye moom itam muy jàmbaar. démb ko sëñ bi mujj seere. démb la ko sëñ bi mujj seere. ne man de miinu ma ko woon. na man de miinu ma ko woon. waaye dogu gi ma seen ci moom. waaye dogu gi ma seen ci moom. ak pësteef gi ma seen ci moom. ak pësteef bi ma seen ci ma seen ci moom. ak yitte ju kawe gi ma seen ci moom. ak ràññee gi ma seen ci moom. ak ràññee gi ma seen ci moom. xam naa ne ndimbalul xam naa ne ndimbalul ma am la. kon ñu ngi sant ñëpp. kon ñu ngi sant ñëpp. kon loolu daal. kon loolu daal. mooy ndigalu sëriñ bi mooy ndigalu sëriñ bi. la ca des nag. la ca des nag mooy di nuyu préfet. mooy di nuyu préfet. Euh, mi nga xam ne moo fi moo fi teewal nguur gi. mi nga xam ne moo fi teewal nguur gi. ak ñi ko seqal ñëpp. ak ñi ko seqal ñëpp. di procureur bu Mbacké. di procureur bu Mbacké. ak euh, commissaire bu Touba. ak commissaire bu Touba. ak commandant bu gendarmerie. ak commandant bu gendarmerie. ndax ñoom ñoo seq liggéey bi. ndax ñoom ñoo seq liggéey bi. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. te liggéey bi nag day liggéey bu yaatu. Euh, danaa ci dellusiwaat. danaa ci dellusiwaat. waaye li ci am solo. waaye li ci am solo. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa. kon préfet ñu ngi lay yóbbanti ci say kilifa. ndax ni nga ko waxee rek. ndax ni nga ko waxee rek. duñ la fi tëb di jàll. duñ la fi tëb di jàll. ndax bu ngeen xoolee lettre bi. ndax bu ngeen xoolee lettre bi. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. ba ko sëñ Abdou Lahad di bind. mënoon na ko adressé Abdou Diouf. mënoon na koo adressé Abdou Diouf. waaye defu ko. waaye defu ko. ki ne fii ko def ki ne fii rek la ko jox kon yow it sa loxo lañ ko tegaat kon yow it nag sa loxo lañ ko tegaat ndax daaw sëriñ bi da a woo ndax daaw sëriñ bi da a woo te laata mu leen di woo te laata mu leen di woo damaa woo ba ma ñëw woo ba ma ñëw mu ne wool ma ki jiite mi mu ne la woo mu ne ko wool ma ki jiite réew mi président Macky Sall président Macky Sall sëñ bi wax ko ko ci téléphone sëñ bi wax ko ko ci téléphone wax ko ko bëggee wax ko ko ni mu ko bëggee sëñ bi leeralaat na ko sëñ na loola jëru del si waat kon loola jëru del si waat kon yéen la ci seen wàll kon yéen daal la cay seen wàll na ci taxaw bu baax na ci taxaw bu baax ndax euh, li tax. ndax li tax. bu ngeen ci taxawul rek. bu ngeen ci taxawul rek. jafe-jafe lay indi. indi. ndax Baye Fall moom. ndax baay Fall yi moom. li leen sëñ bi digal. li leen sëñ bi digal. faaw ñu def ko. faaw ñu def ko. kon yéen tam bu ngeen leen ko sàmmalewut kon yéen itam bu ngeen leen ko sàmmalewut bu ci jafe-jafe amee day naqaree lijjanti bu ci jafe-jafe amee day li lijjanti ndax ñoom seen bakkan lañ teg ci ndigalu sëñ ndax ñoom kat seen bakkan bii lañ teg ci ndigalu sëñ bi xew-xew yii fi amoon xew-xew yii fi amoon bañ ñëwee ci man ban ñëwee ci man ña ca gaañu ci ñoom bari na. ña ca gaañu ci ñoom bari na. waaye dañ faatu woon it. ko bu ci nit la ko wax ndax xam ne def na lam war a def. ndax dañuy xam ne def na lam war a def. kon yéen itam. kon yéen itam. am ngeen ci responsabilité. am ngeen ci responsabilité. te ñoom it am nañ ci gàllankoor. te ñoom ñii nag am nañ ci ay gàllankoor. ñoom duñ jàmbat. ndax ñoom duñ jàmbat. Baay Faal duñ jàmbat. Baay Faal duñ jàmbat. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. ñoom seen bakkan rek la ñuy joxe. waaye bari na lool. waaye bari na lool nag. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ñun jàpp ci biir dëkk bi. ndax suñ ndax nit ñi dañuy jàmbat. ndax nit ñi dañuy jàmbat. ne dañuy dugg ci biir kër yi. ne dugg ci biir kër yi. te loolu bokkul ci liggéey bi. waaye loolu nag bokk na ci leen di jafe-jafe bi. waaye bokk na ci nag la indi jafe-jafe bi. ñoom ñoom Baye Fall wax ne. ñoom Baye Fall yi wax ne. kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. kër gu ngeen gis ñu dugg ci rek. dañ ko topp bañ jafe jaay yàmba wala lu ñu demee. dañ koy topp bañ xam ne dañ fiy wala lu ñu demee. moo dugg moo tax ñu dugg fa. loolu nag kon yéen leen ci war a taxawu. loolu kon nag yéen leen ci war a taxawu. te bari na lool. te bari na lool. burut benn du ñaar. ñaar. yóbboo police. bu subaa bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bu subaa ñu gisaat ko muy dox ci mbedd bi. loolu nag am lëj lay doon. loolu nag am lëj lay doon. kon yéen itam da ngeen responsabilité kon yéen itam nag da ngeen am seen responsabilité bu ndax bu ngeen ko jëlut responsabilité bi bu ci leneen xewee bu ëllëgee bu bu ngeen bu ngeen du sotti bu ngeen dëniir loo du sotti ndax yéen lañ dénk nit ñi ndax yéen lañ dénk nit ñi kon loolu seen responsabilité kon loolu seen responsabilité kon ci yëgoog ñoom fu ñu ci demati ba mu wóor leen lii nga fa fu ñu ci demati ba mu wóor leen ne lii nga fa te loolu lu waa tere na ko te loolu lu tere na ko li lu waa Sénégal terewul nag li wa waa Sénégal terewul nag te sëñ bi moom ab dëkkam di këram te sëñ bi moom ab dëkkam muy këram loolu mbirum boppam loolu mbirum boppam waaye la des yéen da ngeen caa war a taxaw waaye la ci des nag yéen da ngeen caa war a taxaw ndax bu ngeen ci taxawut rek ndax bu ngeen ci taxawut rek mooy waral ñoom ñu fajal seen bopp mooy waral ñoom ñu seen bopp te buñ fajalee seen bopp te buñ ne civil nit ñi ne civil du lijjanti moromam siwalam du lijjanti moromam siwalam te fekk na taxawaay bu war a am bu amee fekk na taxawaay ba war am bu amee bu fekkee bu ñu leen signalé yéen bu fekkee ne bu ñu leen signalé yéen ngeen def ceeg dogu ngeen def ceeg dogu kon du agsi foofu kon du agsi foofu kon loolu laa leen ci soññ kon loolu laa leen ciy soññ procureur yow procureur yow itam nga say kilifa ndax xam ngeen ne ndax xam ngeen ne ñëpp xam nañ Sénégal lu waaye ni mu tëddee. ñëpp xam nañ Sénégal lu waaye ni mu tëddee. waaye jàpp naa ne la mayoon Cheikh Abdoul Ahad. waaye jàpp naa ne la président ba mu fi nekkaloon. président ba mu fi nekkaloon. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. mayoon ko lii ñu ko tere Touba. loolu lu waay Sénégal terewu ko. loolu lu waay Sénégal terewu ko. waaye loolu xam nañ ne. waaye loolu xam nañ ne. dëkk bi yeyoon na ko. dëkk bi yeyoon na ko. kon yéen itam ngeen def ci ngeen def ci yitte. kon yéen itam ngeen def ci yitte. ndax bu ngeen ci defut yitte rek. ndax bu ngeen ci defut yitte rek. anarchie mooy am. anarchie mooy am. ndax ñoom li leen sëñ bi digal. ndax ñoom ñii kat li leen sëñ bi digal. seen bakkan lañ ci rek. seen bakkan lañ ci rek. buñ ci doon faatu ba jeexit. buñ ci doon faatu ba jeexit. xam naa ne jaral na leen ko. xam naa ne jaral na leen ko. kon nag kon nag loolu mooy li ci jëm ci lool loolu mu ciy jëm ci lool li ci des mooy bokki taalibe yi dëkk ci dëkk bi li ci des nag mooy bokki taalibe yi dëkk dëkk bi nañ xam ne nañ xam ne li sëriñ bi sant baay Fall yi lii sëriñ bi sant baay Fall mboolem seexi sëriñ Tuubaa yi mboolem seexi sëriñ Tuubaa ñëpp la ko sëñ bi sant ñëpp la ko sëñ bi sant ndax ñoom seen maam yaa ñoo gàddaayoon ndax ñoom kat seen maam yaa gàddaayoon te dara taxu leen a jóg lu may ngërëmul sëñ Tuubaa te taxu leen a jóg lu dul ngërëmul sëñ Tuubaa ànd ak bi ànd ak sëriñ bi xamuñu woon fu ñu jëm xamuñu woon fu ñu jëm ba sëriñ bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu ba sëriñ bi yóbbu leen fii mu leen yóbbu kon ñoom suñ bokki seex sépp kon suñ bokki seex sépp nañ xam ne ndigal li nañ xam ne ndigal li ñoom ñoom ñoo ko bokk ñoo ñoom ñoo ko bokk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dadaa def rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dadaa def bu yónni woon ñetti nit wala ñeent sax bu yónni woon nit wala ñeent faaw mu wax ne kenn jiitu faaw mu wax ne kenn jiitu dafa mel julli dafa mel nag julli ñëpp lañ ko sant ñëpp lañ ko sant waaye faaw kenn jiitu waaye nag faaw kenn jiitu kon nag loolu kon nag loolu kër yëpp nañ ko xame noonu kër yëpp nañ ko xame noonu ñoom itam demoon nañ ci ñi ci ëpp ñoom ñii nag ñu ci ëpp demoon nañ ci ñoom waaye démb waxaat nañ sëñ bi ne ko waaye démb waxaat nañ sëñ bi ne ko bind nañu leetar bind nañ ay leetar ngir wër kër seex sëpp ngir wër kër seex sëpp ndax bëgguñ ak defar guy jur yàq ngir bëgguñu ak defar guy jur yàq bu ci bu ko defee bu ko defee kenn ku ne penc ma nga ne kenn ku ne penc ma nga ne yaa leen fa nekkal yaa leen fa nekkal loo fa gis loo fa gis lu war dañ nga dindi ko. a kon ñoom itam koy digal. di ko digal itam Abdoul di ko digal it Abdoul Ahad Ka. dafay nekkul. yàlla dogal dafay newul. ndawam a ngi fi. a ngi fi. ndax moom itam moo jiite commune bi. ndax moom itam moo jiite commune mu a def. ak lu mu jàpp ci. moom mu jàpp ndax xam ngeen adduna fi mu toll. ndax xam ngeen fi adduna toll police police yi réew yu mag yi sax. police yi réew yu mag yi sax. police yi mënatul attan sécurité dëkk bi. police yi ci seen jëmmi bopp attanutuñ sécurité dëkk yi. ñoom dañuy fexe ba nit ñi ànd ci. ñoom dañuy fexe ba nit ñi jàppale leen kon rawatina fii nga xam ne taalibe Sëñ Tuubaa kon rawatina fii nga xam ne taalibe Sëñ Tuubaa li ci des nag. li ci des nag. moom doxinu àdduna la moom doxinu àdduna la fu lu baax nekk rek fu lu baax nekk rek safaan ba dugg si safaan ba dugg si ndax sëñ Abdou Lahad ba muy tere lii ndax sëñ Abdou Lahad ba muy tere yii ñi judd ginnaaw bi ñi judd ginnaaw bi xamuñu ne dëkk bi meloon xamuñu ne dëkk bi meloon boobu ak dogoom rek waaye ak dogoom rek moo tax mu agsi fii moo tax mu agsi fii dogu googee nag dogu googee nag ca la Cheikh Mouhamadou Mountakha di roy ca la mun Mountakha di roy fa yéene fas yéene lim bëgg lépp mu am ko lim bëgg lépp mu am ko te di su fitnaal nit te di suñ ci fitnaal nit di su toroxal nit di su ci toroxal nit di su dóor nit di su ci dóor nit Serigne Touba nag Serigne Touba nag waxoon na ne Serigne Abdoulaye dafa waxoon ne Serigne Abdoulaye daa waxoon ne Serigne Touba Serigne Touba melaw géej la yor melaw géej la yor géej nag attan na lépp. géej nag attan na lépp. lu dugg ci biiram mu attan mu attan la. lu dugg ci biiram rek mu attan. waaye lu ci bokkul nag dana la génne. waaye lu ci bokkul nag géej dana ko génne. ba ci taw bi sax. ba ci taw bi sax. lu taw bi bari bari. lu taw bi bari bari. bu noppee dana ko génne. bu noppee nag moom dana génn ndoxam. loolu mooy mbirum sëñ bi loolu mooy mbirum sëñ Tuubaa. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate ne ko. te waxoon na sëñ Amsatu Jaxate ne ko. mujjug jamono de. mujjug jamono de. danaa yelbu. danaa yelbu bu ma yelboo nag ku ci bokkul da nga génn. bu ma yelboo nag ku ci bokkul da nga génn. kon nag loolu. kon nag loolu. mooy ndigal mooy ndigal li li ci des nag li ci des nag sëriñ bi joxewoon na ndigal na naa ko leeral sëriñ bi joxewoon na ndigal na naa ko leeral mooy bi mu fi waxee mooy bi mu fi waxee jox ndigal Baye Fall yi jox ndigal Baye Fall yi ba wax ci élection yi ba waxoon ci élection yi wax ne nit ñi dañ koo dégg ne nit ñi dañ koo dégg ne sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi sëriñ bi bëggatul ko wate ci dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi waaye daa bëggoon ñu génne ko dëkk bi ba ma ñibbisee itam ba ma ñibbisee itam sëñ bi jox ma ci ndigal sëñ bi jox ma ci ndigal ma àndoon ko jarbaatam di secrétaire am xaadim suñu xaadim ma àndoon ko ab jarbaatam di secrétaire di suñu xaadim Diop. ak ñam ko seqaloon. ak ñam ko seqaloon. ñoom ñoom ñoo liggéey. bindoon ko ci ko aw kayit niñ ko xalaate niñ ko xalaate jébbal ko sëñ bi jébbal ko sëñ bi wax leen ñu indil ko sëñ bi wax leen na ko nañ ko yët sëñ Basiru ba ma ko wuyutee ba ma ko yëtee mu ne ma yët ko réew mi ne ma yët ko njiitul réew mi nii laa ko xalaate nii laa ko xalaate ma jógee fi dem ba jox ko ko ma jógee fii dem ba jox ko ko mu xool ko mu xool ko yónnee ko ministre de l'intérieur yónnee ko ministre de l'intérieur ba mu ko ko joxee nag ba mu ko ko joxee nag ñoom bañ ko saytoo ñoom ba mu ko saytoo ñu xool xam ne xaj xat na ñu xool xam ne xat na xam ne xaj wala mën naa indi jafe-jafe jafe-jafe ndax dañuy wax ne kuy wate ku ne ndax dañoo wax ne kuy wate ku ne sa carte d'identité war a watee dañ ko caa a def fa war a watee dañ ko caa a def bi sëñ bi xamee loolu nag bi sëñ bi xamee loolu nag mu ne kon jàmp na mu ne kon jàmp na at mi moom at mi moom nañ ko bàyyi na meloon nañ ko bàyyi na meloon ndax bëggut dara loo xam ne dana gàllankoor nit ñi ndax bëggut dara luy gàllankoor nit ñi